mbooloo mu takkoo takku ci ay kilifay diine euh, kilifay aada waaye itam waa kër Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim woon muy wuy si woote xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ci li nga xam ne nii woote na ko jëm ci université boo xam ne nii day mën a suqal li nga xam ne moo di réewum Afrique rawatina àdduna war nga këpp te amale ko ci dëkk bu sell bi ci Touba boobule université ñu fas yéene ko dippee Cheikhul Khadim mu nar rab boole ay faculté yu bëree bëri yoo xamante ne nii war naa am ci boobule université waaye tam ñu mën faa jële ay xeeti xam-xam yu bëree bëri woote boobule mu mel ne xale général di mu tàbbalu ko ci noppub tëx ndax mboole ma askan wi nga xam ne ñoom waa kër Serigne Touba ñëpp wuy si nañu ko ci biir ndaje ma moom xale général di mu jile kàddu la yëkkati ak jaxee bi mel ne xam ndax dara bettu ma ci te fu ngeen da da da ko weesu loolu rek laa man maam laa laa xam moom laa moom laa am yaqin ba nga fa jataay bu njëkk ba bii xamewuma ko lii dara rëbbati ma ci te am naa yaqin tam ci ci kanam dan mun na ñàkk ñaan rek suñu borom sàmm leen ci yàggal leen wéral leen ba ngeen mën a nekk ci liggéey bii na ngeen ko yéenee loolu rek la ni ñaan waaye amu ci dara loo xam ne doon bett sama sama am naa ci yàq ginnaaw ba mu tegee xeer ba noppi ki nga xam ne moo di jëwriñ jii di Aly Ngouille Ndiaye nag yëkkati na ay kàddu di fësal ne njiitu réew mi di président Macky Sall am na yéene ànd ak ki nga xam ne moom moo di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké jàppale ko ci sumb bu mag bi nga xam ne nii koppar yi war naa toll ci fanweer ak juróom-ñaari milliards ci koppar yi CFA waaye tam moom alinguy Ngouille moom fësal ne nguur gi fas yéene naa jël ay jàngalekat daal di leen di indi foofulee ca université Cheikhoul Khadim ginnaaw bu noppee moo wax la ne yéeneem mooy ànd ci ak yow nguur gi jàppale la ci lépp luy wàllu yoon yi dugg si ak yiy jokkalante taax yi waaye tamit mu yokk ci ne nguur gi dana la jël lim ci ay jàngalekat fii gis war a nekk fii di daal këru liggéeykaay gi nga xam ne ñoom lañ dénk boobu la liggéey nag di Touba matériaux war a koo def ci diirub ñaari at ñi nga xam ne ñoom ñoo séq liggéey boobu nag di fësal ne délai boobu la daañu ko respecté fileeg ñaari at yooyu lee ngir mu daal di mën a yem bu ñu jébbal caabi xalifa général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké jamono ji nag ñu bëri ci askan wi ak ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ci dëkk bu sell bi ci Touba yàkkamti nañ liggéey boobu le pare ba ñu gën a mën a xóotal li nga xam ne moom moo jëm ci seen wàllu xam-xam rawatina yokk seenum njàng ci lu jëm ci wàllum université